ñaareelu xaaj bi ci ñeenti xaaj yi ci jamono jooju ganaaw bi ñu rey Étienne amoon na ay taalibe yu tukki woon ci yeneen réew ñu jàngal xabaar bu baax bi yawut yi nekkoon ci diiwaanu Fenisi ak dunu Sipar ak ca dëkku Antiyos ay taalibe yu dëkkoon dunu Sipar ak Siren jàngal grek yi dëkkoon Antiyos ndaxte ñoom déggoon nañu làkku grek ñu bare ci ñoom gëm ba mucc te fekk duñu woon yawut mbooloom ñi gëm ci Yerusalem yebal barnabaas ancos ngir mu jàppale ñi gëm foofu ëggoon nañu njàngale mi dëppoo ak li ndaw yiy jàngale gannaaw gi barnabaas indi sool ancos ngir mu dimbali ko diiru at ñuy jàngal mbooloom ñi gëm ci ancos foofu lañu jëkk a wooyee taalibe yeesu yi gaayi kirist léegi malaaj laaj leen juróom lu tax yónni barnabaas ca dëkku ancos mbooloom ñi gëm yónni nañu barnabaas ngir mu jàppale ñi gëm foofu bëggoon nañu njàngale mi dëppoo ak li ndaw yiy jàngale juróom ci seen xalaat man njàngale lañu war a topp li yéesu ak ndaw mi jàngale dañu bind ko ci téere kolëre gu bees gi juróom ñaar lu tax barnabaas yóbbu sool antios bëggoon na sool dimbale ko ci njàngale mi ci ñiy soog a gëm ci antios